La ngi leen di nuyu euh, di leen jégalu ci dajale bi leen dajale fii ñu ngi bokk ci benn association bu tudd Sakk Yiw ñëwoon fii pour jàppalante yéen ci wàllu ten maanaam wàllu ndox xëy na suñu ñëw fii dina jaaxal ñu bëri lan moo ñu andi mais pour fàttali rek que ne ñun li ñu andi fii euh, amul dara ak politique c'est-à-dire nekkuñu ay politiciens dañoo ñëw juste ci population yi pour xool yan jafe-jafe lañ am ñu ñu mën ci indi suñu dimbal jàppale leen ndax loolu ñuy def yaakaar yaakaaruñu population yi ñu fay ñu mais yàlla lañu yaakaar mu fay ñu loolu moom moo tax association bu mel ni Sakku Yiw muy dem ci population di jàppalante ak ñoom surtout lii nga xam ne moom mooy ndox nga xam ne dafa nekk loo xam ne mënta ñàkk ci dund nit ki su juddoo dafay soxla ndox ba keroog muy génn àdduna dafay soxla ndox kon ndox dafa bokk suñu dund ci anam bu nekk suñ ko amul benn bis rek nga gis ne da koy yëg loolu nga xamné ne la jafé noonu tamit lako yalla yombalé mu nek lo xamné nit ki su koy joxe day doon jaamu yalla ci mom ba tax su génnoon aduna sax euh ci bamélam yalla dako fi andi ay tuyaaba fek nit ñi ngi jëriñ ci ndox bobu loolu motax ñun ñu sawar dem def ay ten ci yalla bi. ten ten bi ñu ko financé ñoom ñu ngi tudd association manam juste 5 euros ñoom nekkuñu ay sénégalais France la ñu nekk. Hmm. mais comme gis nañ ñun li ñuy def ci yalla bi. ndax ñoom ñu mën a am ci ñun kóolute ñëw jox ñu xaalis bi ne nañ ko def foo xam ne soxla nañ mu tombeek mu nekk seen dëkk yéen association bi boobu mi ngi tudd juste cinq euros kon ñooñu soxla nañ ñu ñaanal leen yàlla mu nangu leen seen jëf ji aussi mu bëri ñu mel ni ñoom daal ñoo xam ne dañuy ñëw di dimbali nit ñi ci yàlla dénk maa leen di nuyu seen association bi kontaan naa trop ji nga suñu dëkk bi dafa am problème ndox léegi bu ñu amee ten bi kontaan rek la am Fi, même gan yi suñu nekk di romb mu nañu jaar fi ñu naane lolu content rek lañu am gis nga jabar yi fi am na xamantene di ñi dem rot ba jiine am nga lolu rafetul waye bu ñu amé ten fi am nga lolu content kese la. ngal konto ndro ko la kontan bi mbulja bawo ninu nu e, population bi do ko la e fen sam man da fen na adila utmo ni societe o fen samana sate kono na ntela kontano fan warma men foka kolon ka kardi mo kana tinya jiko kola ta jam fo nya tara ndol ka boyene kata je bi ne jeli san jine ngol bona jine le na je bi jang jamol si bona kata je bi jine ni kolon ja toral be ka bula jeli yo ine ala na daga fon na tan so ja kontano men bi sa te kono warta fata mit ma ni ngam ta komi komi de wandi a fewti ate betala ndelle la fewmu nkontan taral bi nkontan taral sama aku an shewo bage an shewo ne ba a jiyo ko fe ma si asutun ni ni man sai na ita o jiya na ta je min nan jiyo han ya mo bal jiya tilkilin dro funa nya ba ne ta kelo kelo kelo ke jiya ba jiya ka ta shilo min ni asuki bata da malbi ni ko lono taro ja an ba birne ko ma fana jiri a bele shewo ta ni bi tambol lunda o sin ne ta no le mi shilo mi ta o konta no bi mbala ba ilan na ja ke guta ba ha an eh, tentu ba ke ha kolon ni ba sin na dukara sin makoi ka sin ka ka makoi je ta duma ni je ta ta fo duma ate janu bar ni ata ta don na ja ta ron fara kitan bulu komi tel botel sa ate mota so don mi ba sin no marab sin no wato min no to le nda makoi la kaji profondeur o jini duma ay ji duma na ji da wo kontano ko ra kuma man daraja afo yon kontan ta bakin se wotal ha kontan tel kula milbe fana makola fo la se fana nul temo betenni ha telefutera nyami yake ho nyami funale yake telefutale ho nyam ale ku ke nyi jang ayen kontani sewota katun ji ko kan tel batandi bak ntela mol fa katrisa wosile manje so tabe duno kole ya fa buka dunoke baranal na ta in kere kere jaliye sabu jang al sijie se kolon kafu je kafu ay siya kanyanta sewo atel mul ye ñin jang anal fanal be mili nooma ala sin be so wona al sal bulo kafu ala sin be so sima banu jata kende ala kolonga ya beteya wala mun nal be la todiyati ni kolon bete à Tatambila, Tambila et à Djedjan. Abébi content. Alhamdulillah, nous sommes au deuxième village pour procéder à, au lancement du deuxième puits, financé toujours par notre partenaire, juste 5 euros. Alhamdulillah, le village, tout le village est présent. Le chef du village aussi nous est présent. Les femmes sont là. Tout le monde est content, Alhamdulillah, pour cette, euh, cette, euh, ce cadeau que vous avez bien voulu euh, donner à ce village-là, qui est un puits qui est l'eau, l'eau qui est très très très, très, très précieuse. Alhamdulillah, ils avaient des difficultés pour avoir de l'eau. Nous sommes juste à, la frontière avec euh, la Guinée-Bissau qui est à peu près à, 10 mètres, disons, la frontière elle est juste là, on la, voit. Et avant, ces populations partaient en Guinée-Bissau chercher de l'eau, Alhamdulillah, avec ce don aujourd'hui, ils vont pouvoir avoir de l'eau ici au Sénégal. Alhamdulillah, les travaux ont bien avancé. Aujourd'hui, ils sont à peu près à, à 7 mètres euh, de profondeur. Tout ce qu'on peut faire, Inch'Allah, c'est de, prier pour vous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte euh, ce don, accepte pour vous, pour vous protéger vous et votre famille, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve une grande récompense euh, le jour dernier, le jour où tout ce qu'on peut espérer, c'est les, œuvres qu'on a bien voulu faire sur cette terre. Inch'Allah, vous enlevez des difficultés à ces populations. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de vous enlever des difficultés le jour du jugement dernier. Nous espérons, Inch'Allah, que cette collaboration va continuer, inshallah avec Sakuyu pour faire encore d'autres projets euh, pour, euh, pour les populations, inshallah. Il y a d'autres besoins, Inch'Allah, comme euh, je laisse Ousmane, Inch'Allah, développer pour, comme nous a dit les, villageois, ils ont d'autres besoins. oui, tout simplement. Il y a beaucoup de villages qui n'ont pas encore d'eau. Euh, on a, on me semble aujourd'hui, une 160 puits, je crois, mais combien de villages n'ont pas d'eau Donc la collaboration continue. Alhamdoulilah, c'est une grande chose, mais il y a encore de, belles choses à faire. Comme le chef du village nous disait, il avait besoin d'une mosquée. Donc les besoins sont grands, mais avec nous, Inch'Allah, avec vous, sur 5 euros, Action pour l'espoir, l'aide d'Allah, nous pourrons faire, Inch'Allah, de plus grandes choses, Inch'Allah. Donc nous vous disons à bientôt pour l'inauguration des deux puits, là. Nous vous remercions encore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.